di di di wax asalaamaaleykum wa rahmatulah gannaaw bi ñu sant yàlla ñu ngi julli ci yonent bi di sant Serigne Touba bu baax di ñaanal ak Cheikh Mamadou Mountakha suñu borom yàggal ko fi loolu di ko ñaanal Cheikh Abdou Baraka xalifa Cheikh Mamadou Fadal di ko ñaanal njaboot Serigne Fallou yëpp yëpp di ñaanal Cheikh Abdou Fatah Mbacke Fallou bu baax a baax a baax suñu borom yàggal ko fi loolu tamit di ñaanal suñu dund Serigne Fallou Serigne Cheikh Naam di baalu àq Sénégal di leen baal àq di ñaan yàlla suñu borom may ñu fekk at yu bëree bëree bëri bëri ndax bisu tabaski moom bisu feet la mais bisu baalante àq la kon ginnaaw bi ñu jullee ci dàmm ñu ngi baal àq jullit yëpp ci li nga xamante ni yëg nañ ko ak ci lu ñu yëgul ndax àq dafa sew te Sénégal génn na ci mois yoo xamante ni buñ tollee ci bisu mel nii li ñu mën def mooy baalante àq te tàppe xool yi te nekk benn rek waaye liñ doon liñ doon séntu ci ñoom rek moom lañ def ndax vraiment ku ci nekk xam na ne tabaski Sénégalais yi dañ ko def comme fête mooy seul fête goo xamante ni sénégal yi dinañ jóge fépp ci Sénégal dem fi ñu dëkk kon bu ñëwee ci tabaski ren gi ak tabaski yi ko jiitu ñu gis na dana am ay manquement ci wàllu transport bi Euh, trans suñu mbokki transporteur daan yokk seen seen seen njëg yi loolu ku ci nekk dina comprendre mais xel mënu ko woon a nangu kon bu ministre du transport El Malick Ndiaye defee jéego yi mu def ànd ko DC Dakar dem dikki Assane Mbengue dañ koy rafetlu te Sénégalais yi loolu lañ doon xaar ci ñoom di ñaan rek acte yi nga xam ne posé nañ ko ndax am na yeneen fête yu ñaar suñu kanam muy yombal dem bi ak dikk bi ndax Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xaar ñaar di rafetlu it euh, xutba bi nga xamante ni Cheikh Mahamadou Rafael def na ko ndax liñ ci mën a jàng bëri ñoo na ci ñu gën a wéetal yàlla ñoo na ci ñu di jëfte yàlla tax surtout wàññi sal gi lépp nit tere sa morom nga dimbale ko ñëw na ci ki nga xamante ni dañ koo dénk lan moo war a nekk mu pa pa mu jaawale moom miñ dénk ak avant ñu koy dénk lim doonoon xam ne lépp luñ koy defal wala lépp luñ koy màggal liñ ko dénk moo tax ñu def ko defal kon jàpp naa ne ñu déglu xutba bi liñ ci mën a jàngate bëri na kon li ñu wax rek mooy yàlla nañu yàlla may dégg ak topp